capitaine FC sans loi FC sans loi dañ kay bàyyi FC sans loi moom lu muy signifié dama lay dama lay poser question boobu balaa ngay wax yow yaay kat FC sans loi mooy lan. Euh, comme comme si booy rek ñoo ñoo ñoo ñoo ko tànn quoi comme booy bu ñuy tànn ay kii équipe turu ñoom ñoo jël seen turu bopp rek tuddee ko seen bopp. Ah, ñoom ñoo daal di tànn FC Sans Loi Kapi euh, yow euh, maanaam noo tudd ak lan ngay représenté tey si bés bi. man Saliou Niass laa tudd. Mm-hmm. maa représenté kii capitaine FC Sans Loi ñoo ñoo dem final ñoo ko jël instant yii waaw ah, nan nga gisee bés bi tay ak victoire bi gis nañu tey coupe bi kontaan bay bëgg de sànq ba léegi yaa ngi yuuxu mais nan nga gisee tay bés bi. mette ak contenté bu bari parce que ñu ngi jógee ba Tëngéej ah ñëw bok ci ñëw bok tournoi ki Zac Mbao waaw buñ ko jëloon nag dinañu métti parce que yoon bi ñuy traversé ñëw ba fi ni comme ñu sétane tek suñu xaas perdre ko non dem di ñibi fu sori ko Ah!